damay xamante ni tey dafa maade ak jeunesse bi amateur yi li nga leen indi nii di plateau di dañ ci kontaan mais Babacar dina woon ni làmb lii la soxla di wax ni sax gis nañ fi ay image yoo xamante ni lu ñuy ñaawlo la di wax jeunesse bi nañuy ànd ak yar te xam ne làmb suñu sport national la nañ ko respecté respecté amateur bi nga xamante ni bijou la boo xamante ni tey ñu bëri dañu ko soxla kon nañu defaraat seen image am yar am teggin te xam ne lamb. ñëw ci lamb ji mais daal mouvement. grand combat de la soirée ci diggante ki nga xamante ne moom mooy Blindé ak Bébé Birahim. mooy Pikine Ouest tàllal naa ñëpp loxo arbitre bi maa ngi tàllal ñëpp loxo di ñaari xale yi ñu ngi ci digg géew bi génn jàppale ma te xam ne maire bi bu ma ko jëlee lépp loo métti na la rek incha allah rabbi moom moo féete à droite kontaan ci yow Bébé Birahim moom moo féete à gauche ndeysaan arbitre baa ngay waaye soufflé. Blindé à gauche arbitre soufflé na. arbitre soufflé na ñoom ñaar. Blindé ak Ibrahim. laa ilaaha illallaah. Fallou Ndiaye combat baa ngi. ndeysaan combat baa ngi nii. Blindé bébé Ibrahim. ndeysaan. Blindé bébé Ibrahim. bébé Ibrahim bébé Blindé. bi noo ko gisee. Babacar neexoon nañu. tolloo nañu. ci taxawaay. Uh-huh. ak si dayo uh-huh. xalaat naa ne uh-huh. bu ñu xeexee dina neex bu ñu bëree war neex mais est-ce que poids gaaw a xeex moom waaw poids lu est-ce que duñ ñëw jàppante rek non des fois poids lu xeex maa nga da xeex door na ko de ba i da ngi bëgg dox ci parcelle dafa oh! daw na door mu door mu daan du bu ngeen xeexee noonu door mu daanu am ci de bu ko jëli noonu mooy tul be Birahim nee na ko fa taay complet laa lay. oh beneen bi bi Birahim moo doon naa doon. doon na waaw waaw doon na bu waaw doon na waaw doon na waaw doon na waaw waaw doon na. doon na ko ba mu daanu. waaw waaw. doon na ko ba mu daanu. daan na daan na daan daan na daan. acca mais dara dama la koy jégal yow. félicitation man sa damaa juum nag maa ngi balawaat. parce que maa ngi juum naan. be Birahim ndekete yoo. beneen beneen yaa dóor mu daanu sarse ko ay ku ba mu so nga dóor ko mu waaj kenn mënul kenn xamul ku dul yàlla ah, ah. Ah, yow déet non déet belende kaay dañuy wax ci làmb la ñuy wax yàlla moom allahu dun ji bokkut ak géew bee ñuy bëree géew bee moom ku fay dem da ngay yàlla moom moo ñu bind sàkkuñu est-ce que yaa ngi lu am moom la waaye nag ku xiif yaay toggal sa bopp pour lekk tàndarma ji ma yor su ma ci bëggee jariñu maa koy jënd sax ko boo entraîné wu kon doo daan xam nga loolu kon waxal ci combat bi. waaw ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si yonente di gërëm suñu ñaari waajur. di gërëm ñu ma àndal ñëpp ñëw see sànni. samay entraîneur ku si mel ni grand Las ku si mel ni grand Laay ku si mel ni grand Aada sama entraîneur. Ah. di leen gërëm bu baax di gërëm Waly Waly da di kenn si man. waaw sama nit la sama xarit la. di gërëm baax a baax a baax ndax xaalis bu bëri la génne jox ma di gërëm sama mag moo ma bokkoon ndeg baay billaahi ba léegi nii nii amul su ma si benn affaire sax mu yónnee ma xaalis. kon xam nga yombul si ñu bokk ndey dama koy ñaanal yàlla yàlla jàppale ko. di gërëm tamit per Ba jàpp na si combat bi. Ah, ak Mansour Ba. père Ba mooy parcelle. di gërëm tamit xam nga ku si mel ni Pape Sidi daa jàpp si komba bi ku si mel ni Babacar Sall ah Mansour Sall ah ñoom ñëpp dañoo jàpp si komba bi. di gërëm tamit euh, sama benn grand bu ñuy wax Ndaw Sayer Ndaw daa daa génn xaalis bu bëri jox ma. di gërëm sama waa koñ unité 16 parcelle ba 1 ba 26 unité 17 aw ma seen fay dañoo ba may génn dafa mel ni xoolal Moodu moo doon bëri. ñëpp duggu ñu nag. ndax bi yooyu dañoo jëndoon cinq bolok rek lañ jëndoon moo tax mu demee nii. bu yaa ngi dégg est-ce que ah. ñu ñu des ñoo ëpp ndax bi yooyu fii lañ ah. am na solo mais léegi xam fu mu bëgg ñu ñëw Fatma ci combat bi ah. combat bi nu ngeen ko bëree yéen ñaar parce que xeex bi daa métti lool ba kenn wàcc combat Mm-hmm. na wax dëgg yàlla liggéey na yaa ngi dégg est mm-hmm. ma ñëw ba ñuy jàppante si loxo ma bëgg ko jàpp pour ñu bëri mm-hmm. parce que man li ma li gars yi doon wax yëpp man bëri moo ma indi woon tey ma bëgg ko jàpp pour bëri mu dóor ma kuu ma faxas ko ma xam ne ci su ma xeexul du ko mën a jàpp si laa ku ma commencé dox si comme remise ko mu forcé ñu daje mu dóor ko ay coup yoo xamante ni dóor na ma coup bu dal nag ah, ah, yaa ngi dégg bu manchoir man tam ma dóor ko coup bu dal ma gis si kii sarde naa ko comprendre si laa doxee dóor ko ay uppercut mu daw si dugaan mu dogaale ko si ginnaaw dóor ko ay uppercut mu sigi mu kawote ma xam ni kawote na ma fekk dogali yokku ko voilà mu mel ni kon dóoraat mu wàcc yokku mu mel ni xiir gi Franc yoroon la la jox waaw dañuy sant yàlla rek ñun moom ay xale lañ dañoo nekk ay xale nekk ay ndaw yaa ngi dégg est-ce ñun ay xale lañ parcelle ay xale yi nekk foofu di liggéey rek gëm seen bopp ñoo fa nekk. parcelle da ngeen a doy waar de. waaw dañuy sant yàlla rek di ñaanal papa Sow bu baax a baax. papa papa yal na ko yàlla may ndam si combat mu jëm Modou Lo ko yàlla may ndam si combat mu jëm. di gërëm tuuti ndaw daa si combat képp ku jàppale Blindé maa ngi gërëm ku si mel ni ah maa ngi gërëm El Bachir maa ngi gërëm yaa ngi dégg est ce maa ngi gërëm ah ñoom Abdou Ndaw ñoom ñëpp dañ si jaax Assane Fall maa xoolal ci sati ay sponsor lañ si def xoolal nga ñoo ko defar gis nga ñoo ko defar groupe nopp sa jëkkër nopp sa jëkkër ñu wut ci làmb waaw léegi mais foo jëm foo nag foo faamal la ko bëgg a bëre ku ma bëre bëgg a bëre Malick Niang ko mala Malick Niang man ma Malick Niang su duma ko Malick Niang bëre ak yéen ñii te ngeen mbam Malick Niang su nangul Tyson 2 na ñoom ñu bëre Tyson 2 man Tyson 2 mi ngeen daan kon bu leen ma laaj kon baax ah non. bébé Birahim. wallaay am nga droit wax li mais ba du bëroon ma bëre ak ñoom. xam nga am nga ci droit nag am nga ci droit bi lay seetaan. ñu lay seetaan jas ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan si ñëpp nag kontaan si ñëpp waa kontaan si ñëpp.